kooku mooy làq sa doom mais yàq sa doom mooy defal ko loo xam ni fekk jikkoom ñorul mu defal ni loolu daf ci war a sukkandiku rekk bëgg mu war a manqué orma mu manqué la orma boobu mooy yàq sa doom maa koy suivre fan yi ci information yi lobby boobu yore affaire vente des armes aux États-Unis xam nga fan yi yëpp bari na yoo am foofu ci ay tueries yu kenn xamul ak ay assassinat yu kenn xamul te li ci ëpp ay xale yu tuuti ñooy jëli arme rek ñëw ci benn école wala ci benn place décrocher nos barres. te qu'un du de quoi nous nous dem am insister pour que nous... ...arrêtions... may gi ñu may pour ñu def vente des armes mais ki nga xam tetu société bob mu wax len ni len problème bi nekul ci vente des armes mu ni problème bangé ci jeux vidéo yi jeux vidéo yi def ci am façon bo xam niñ ko défé bu fekkul xalé bi ñu paré ko mën na def ci mom lu nekk mu ni moo tax ñu war a ci jeux vidéo yi ñuy jox xale yi léegi dinañ ci def ay interdit au moins de 10 ans ou euh, interdit au moins de 12 ans mais c'est faux xale yi fa ñuy jaar ba xool li ñu bëgg a mais kenn du ko xam waaw te am na ci ñoo xam ne que monnaie biñ ciy am rek tax respecter li ci xam lu ne fan la dafay nekk farat ngeen baal ma baat bi dañu wax ni dafa am xale bu tàmm day dem ci jàkka ji te bu demee ci jàkka ji bu mag ñi dee julli ba sujjóot mu di leen ruux benn bis nag benn mag sujjóot mu ruux ko mag mi julli ba sëlmal génne fukki dërëm may ko mu daal di jëndi tàngal ca ëllëg sa mu ni comme am naa ci fukki dërëm mu dellu ca jàkka ja beneen mag sujóot mu ruux ko mag ma julli sëlmal jël paaka rendi ko ñu ni ku mujj ki rendu rendiw ko ki ko may fukki dërëm moo ko rendi kooko ko yàq moo xam lu ne fan nga ko war a defe ak ci nan nga ko war a defe surtout pour xale dafa nekk lu fondamental waaw mu dellu ci loolu góor gi wax làq sa doom ak yàq sa doom xam lu ci ne kañ la waaw looloo tax nag sunu maam aadam ak fitna ji mu wàcce ak ñett yooyu ko topp hawa ak taxasum bële dispute bële këréel bële ak passion bi nekk ci seen diggante moo tax doom yi mu njëkk a jur mu am ci gag ndax dafa am lu gane si ci ñoom lu mu bëggul woon mais fekk it muy bëgg-bëgg yàlla bu mu ko bëgg a yar moom pour wan ko ni ko yow ba nga nekkee fii te ma def la ma war a def te nga nekkee nu ma bëggul woon laa lay wan ni mu mettee moom it teg ko ci taawam mu mel nu mu bëggul woon ba pour rien du tout parce que querelle ba duguna dispute ba duguna motax moo tolérer son jeune frère ba mu xey assassiné ko muy Caïn ak Abel waaye yarba yar ci adam yar ba ci jeune frère bi la jóge ndax disposition yi nekk ci moom nekkul ci mag ji ndax la mu doon xëccoog moom bu doon wàllu yàlla sax coono ba mu ca daj jaru ko rawatina la mu doon xëccoog moom àddunay kese la dem na ci ba tëralinu yàlla doy ko mu ni nañ ko bantale mu dellu ci li ma leen wax ci ni la yaasuuna allah ma amarahum mais bu dee ci nit la yaasuuna allah ma arada minhum comme instruction bi yàlla joxe nanguwu ko Bantele moko intéressé yalla conditionné Bantele ba ñu sànni banti banti dalul ci bosam xana dal ci bosso frère ban réaction la njëkk am la aqtulan la éliminer tontu ko nag innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin gis nga ku la gën a jegeñ yàlla rek yàlla féeteeg moom waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li intéressé surtout ci ñeent yooyu ñu cité sidq bi musaddiq bi صدق بأك صادق كون وخنا لين ني صدق بي موي اول بي مصدق بي موي اخر بي صدق بي موي ظاهر بي صادق بي مو مجو موي نيكو باطن بي ليوم ينفع الصادقين صدقهم وعم من الدقو دلني دي ورد وخ دقو فاي مولاي سيدل سدق ولا مو نياك لاكو سيدل mais nit mën na ñàkk lu ne ba mu des ñàkk dëggu gis nga booy def lu bon te mu wóor la ni sa nattu la dëggul ca biir def lu bon ba te yaakaar yërmande yàlla waaw moo gën wane lu baax te fekk lu bon nga yéene ci biir dëggu newu fa moo tax góor gi daan na bari lu may répété ni ma Moustaph ma ni ko labbayka mu ni ma wottu leen ci nit ñi ñi nga xam ne ay dissimulateur lañ mu ni ma dissimulateur rekk moo jara wattu dañu ko dissimulateur mooy kan mu moy ku nga xamni bu nekké ak yow façon yi muy def yépp fay dal sa xel mais fekk li muy teurel fekk yeggu ci ba attendre la do won xamni lolou moko fi bay waaw moo tax mu may wax wattu leen dissimulateur yi moo tax ma wax léegi ni ki doy waar te wane ni dafa doy dëggu ca mooy tare waaw moo taxoon mu daan ma wax benn bis ni ma mu sëf ma ni ko ah, mu ni ma nit ku bon moo tane nit ku sew waaw nit ku bon moo gën nit ku sew mun ma parce que nit ku bon bon na rekk dinga nga xam mbiram mais nit ku sew mënoo xam mbiram waaw ndax fa muy jaar ba gaañ la doo ko man foofu waaw waaw loolooy tax nag ci biir dëggu yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon comme ni ma ko waxe jikko remplacer ñaan mu nekk nag lu jafe parce que jikko yi itam def bi ñaari façon jikko li ñoo tuddee makaarimul axlaaq ak li ñoo tuddee alxuluqul azim makaarimul axlaaq doonte yonent bi tudd na ko buistu li utammima makaarimal axlaaq mu wane ni jikko yi rate woon yi rate woon ci mission yonent yi yi rate woon jikko yooyu laa ñëw pour réhabiliter ko mais baatu makaarimul axlaaq yooyu le moom mu tuddal ko boppam te alquran bi mu ñëwee moom li mu wax ak moom nuun wal qalam وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ñuy laaj nag xuluq azim boobu alquran tudd ak makarim axlaq bi yonent bi tudd daa dafa am لو لان ديفيرونسيي ولا ديت ñu gis ni makarimul axlaaq nit ñee la koy séenoo mais xuluq azim yàlla la koy séenoo xam nga nit ñi dafa am benn niveau boo xam ni ñoom fa la ñu tënk mbaax boo ci apparence boobu rek donte apparence et les apparences sont souvent trompeuses bu ci ñëwee rek pour ñoom doy na mën nañ la confier lu nekk mais bu dee yàlla nag jikko yi muy xool ci nit jotewul ak li nit ñiy séenu ci nit dara parce que nit ñi bu dee ni ñu bëgg gisee rekk yow it noonu ngay accommodé dinga dem ba sonn ndax li ñuy bëgg yëpp doo ko man ba mu jeex te boo ko defatul am lu mu jur mais bu dee sunu boroom nag xuluq azim bi du ko tënk ci li nit ñi bëgg ci ligne de conduite bi mu la tracé rek ci la koy tënk

mais xuluq azim moom it niveau la benn bokk ci ak morom bi yonent bi façon bi mu ko defe dafa gis ni julli juróom yi julli yi seen waxtu juróomi waxtu la awqatu sola dafa nekk juróom suba tisbaar

waxtu subam moy tufuula mooy enfance waxtu tisbaram ci dundu dundam moy adolescence waxtu takusanam ci dundam moy jeunesse waxtu timisam ci dundam moy âge adulte waxtu géem mooy biyeesam kon pour ñu mën organiser nit ci juróomi étape yi enfance bi ak adolescence bi jeunesse bi âge adulte bi ba ci VSM bien sûr que bu yegsee ci VAS bi la cay tegu mooy li ñu tudde âge d'imbécillité waaw موم لا القران دي تود ومنكم من يرد الى ارض العمر يرنتي بي دافا فخه با جوليت بو يكسي كي فوفو ني تود اج ديمبسيليتي موم سوبي كو ديف كو اج دو فيرتي لوتاخ باسكو دافا فخه با وقت دوندم يويو nek ay cousine ci waxtu julli enfance bi nek cousine ci julli suba bi adolescence bi nek cousine ci julli tisbaar bi jeunesse bi nek cousine ci takkusaan bi âge adulte bi nekk cousine ci julli timis bi bu ko defee nag âge bu mujj bi te mooy vieillesse bi nekk cousine ci julli gee bu ko defee nag li ñu tudde axawaat radaa ñoo bokk maanaam ki la jurul du sa ndey ba noppi ta nampal la ñu nekk axawaat radaa moy tax nak bu fekke ni da nga bëgg julli nàmpalal la sa âge yooyu te amoo soow ba wa in taasartum fa sa lahu uxra bu sa ween amul soow boo nàmpale seetal koo wóolu te weenam am soow mu nàmpalal la C'est très important. orienter. Nous ñun niñ ko Nous nous orienter. kilifa yu yi nous orienter, ñuy xaw di buñ cérémonie fekk cérémonie solu cérémonie mais nous génn tante bi fàtte yàlla ak nit ñi rekk a tax ndax sañuloo bis bu ne ngay sol yu mel nii sañoo ko ndax kii la yar waaw commencé ko nag ci bi nga nekkee ndaw fa la ko commencé waaw moo tax nga gis mu wax ci waxam ni tubaab bu doomam juddoo ci lay nekk di sonn ci moom ba mu am fanweeraat mu bërgël ko boo ko defee mu di ko saaga mu ne mais nitu yàlla yi ñoom dañuy bàyyi ba seen doom am fanweeri at ñu soog a jéem a séq moom lu ñuy séq moom fekk li war a dugg dugg na ba noppi moo tax dinañ am lu ne man la gàtte man la defal lu ne mais dañ lay sànni ca daara ja nga jaxasoog ñëpp génération yëpp tase fa Pourquoi nous defee lu ñuy dund rek nga dund Pour ñoom pour ñu parce que ku dul ak ña nga bokkal génération léeg am lu la fait. waaw bu ko ci façon ci lañ lay orienté Tu ci le respect ci wàllu xam nit ci wàllu lu ne nga teg ko fu nga ko war a teg ci wàllu xam li ngay sédd lu tax nga di ko sédd bu ko defee kenn ku nekk baat boobu mu waxoon fii ci gàmm wax ni xale nañu bàyyee xale ni moom yar ko waaw ndax la muy man ci moom mën naa mag du ko man ci moom mais il y a une question d'organisation avec les deux. L'autre, loo que nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir yar boobu mu bëgg a yar nit tollale waxtu julli yi ak waxtu aajam yooyu mu natt ko ci benn montre montre bu nga xam ni mooy saatul umra montre bi mooy sa montre dund mais ñetti aiguille la am benn aiguille bi mooy ruux beneen aiguille bi mooy nafs beneen aiguille bi mooy al aql ñetti aiguille yi ñooy yore sa montre dund yaram bi mooy pile bi pile rek la ci mooy alimenter montre bi dañ koy chargé moo tax bu chargé bi jeexee boo ko chargé waatul yépp day tax yépp day tax ruux dootul man dem nafs dootul man dem àql dootul man dem fokk ngay recharger sa yaram mais recharger bi ci ci ban énergie

boxeur yi ya ñuy def yëpp yëpp yëpp pour pour not seen adversaire rek lañ koy doy préparation bi yëpp pour ci kaw bi ñu not seen adversaire or que am nañu yeneen adversaire yu leen gën jege te not ko moo gënoon nekk farat te daanaguñ ci benn لتشتان ما بين طعام وطعام وين جيسي ماتني نيونكوي واخ كيروك شي واختانو سيمبوزيوم سين تيري تيري بو كي ني بو خولي تورو تيري بي دا ngay xamni li du pour jang kesse kesse ndax tour téré bu dé tuddu qutul qulub ولا ميت زاد المعاد ولا ميت ثمرة العارفين ورنغا خام ني تيري تل دوتول بور ريسيتير دا فا ام مو بغا ديف تي يو موتاخ تيري نونو موم امام غزالي دي اي بيسين piscine yu nga xamni bo ci amul maître nageur pour nga lap ci dafay yom do jàng rek ba téere bo gis jàpp ni maîtriser nga la ca nek bo gisé ku melni ni Seyid Cheikh di bindi terem di ko tuddee jawahirul maani Jawahirul Maani, c'est très important. ni ngeen amee ci bijoux yi jigéen ñiy takk bijoux yi bu ci nekk ak valeur am ñu ne bii argent la mais ça dépend aussi ci argent bi pureté bi nu mu wala nga ñu ne bi or la mais or yi ban ñaata kara la waaw est-ce que 14 carats la wala 18 carats la wala 20 24 carats la sans dépend waaw wala ñu sax diamant la pierre précieuse la waaw waaye léeg-léeg nga gis yu nuroog pierre précieuse ba noppi ñu la ay pakoti la nuroon nañu waaye chetin bokkuñu waaw xam-xam yi tam noonu la mel motax cheikh ci téré mu ni lu ma jox rek pierre précieuse la ce n'est pas n'importe qui moo koy disposer waaw mais itam cheikh al alhaj malik si façon bobu mu waxé ci xilaasu dahab yaa gaïs al bahri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 fameem yooyule mën nañuy jàpp ne ay sadaf lañu yu nga xam ni ay pierres précieuses rek ñoo nekk ci biir ci ñi ko déggee noonu mais Maodo ci biir wax gi muy wax lool dafay wane ne pierre précieuse bu mu tudd ci wàllu yonent bi rek mom amna lum lu ca donne c'est très important pour ku jóge ci Maodo nga gem ni pierre précieuse bu mu tuddal yonent bi rek mom am bu mu ca donne li nga xamni ni modul jadu moo du pierre précieuse yu toll noonu ñu fekk ko ci loxo bu mu warul nekk waxin la xam nga léeg-léeg nga fekk bijou ci baatu nit nga xam ni kii de bijou bi dëppoo naa ak moom mais loolu la Maodo daan sonn di ko wax ci ay njabootam na dégg Sëriñ Cheikh di ñu ko nettali ni dañ daan faral ñoom di toog ci grand place yi di waxtaan ak nit ñi nee na Sëriñ Babacar waxu leen bu leen toggati ci grand place yi dafa leen woo ba ñu ñëw rek mu jël seen livre yi ñuy jànge ubbi page bu jëkk week bind ci baytiya mu ci bind waaw wa samaaka sun an samaai alqabixi ka saw ni ka saw ni lisaanika waaw وسمعك الصن عن سماع القبيح آه. كصون لسانك عن النطق به آه. فإنك عند استماع الخنا شريك لقائله فانتبه ما آه. ما نموان أي آية ولسختك بكي جرام بلاسم من نغفق بقارانتي سبب نيسان نب دوكو باي يلو تورو دوكو دوكو

fay bari ko ko ko ko ñee te fekk ñeewul boppam ndax li nit ñi dunde yépp moyen yañ koy dunde yépp amne luko lu ko ëpp sax mais ni nit ñi dunde façon ba lu dundé façon bob. Wa. ndax pierre précieuse ku ko yor Do do def fu nekk nga ko fa Bo demee sax dëkk yu mag yi ay capital yu mag yi ay Paris ay Londres boo toujours fini ñuy jaayee bijoux yi yenn bijoux yi nga bijoux bijoux nii rek la ak pierre précieuse yi fañ koy du parce que valeur yi moo mais nous itam la mag ñi ci seen téere yi ak seen xam-xam yi lañ koy itam mu pierre précieuse moo tax chia tuddee téere jawaay